ginaar nekk lu ñuy faral di jënd bu korite jubsee ren ji ñu gis ak coppeeku ndax situation bi ñuy dund jamono ji ak Covid 19 bi ba tax jaaykatu ginaar yi am jafe-jafe lool ci seen njaayin ñi fekk ci pàkku ginaar bu marché Ocass bu Touba ñuy àddu di ñu xamal. njaayam daaw ak njaayam ren de moom bokkuñ moom bokkuñu daaw a dàq téeméer yoon ren moom moom gis nga ni mu demee ren moom jërul wax ku gis na ko. nañ ko kay ndax nit daan dañ daan dem ci àll bi jënd ginaar ñëw léegi ñoo dem waaw mënuñoo dem léegi fii rek la ñuy jëndee dañ fi ñëwee ko si ñëw bëriwut moo tax mu seer. producteur bi di xam ne ne couvre-feu bi ñuy dund andi na jafe-jafe ngir indi poussin yi. ñu ngi produire poussin Dakar di ko indi Touba di ci yar ay ginaar di ko jaayaat ñi mais même dañuy am difficulté bu bëree bëri pour indi poussin yi fii parce que autorisation lan lay laaj. te léegi-léegi autorisation bi day jafe pour nga am ko pour indi poussin yi fii te aussi tamit poussin yi pour nga indi ko euh, période ker gu sedd nga ko war a mën a indi comme guddi geeg yooyu te couvre feu bi huit heures lay pour nga indi ko fii day nekk problème te bëccëg bi soo ko doxantoo bëccëg bi poussin yi dañuy dee ci yoon bi njaayam ganaar moom daanaka mooy loolee sant yàlla rek waaye nag koorug daaw moom wax dëgg yàlla moom bokkut ak ren moom mais nag ren affaire xam naa ni mu demee la moo tax quoi waaye nag dañuy doole di sant ko na buñ moom dana jàppandi loolu daal waaw am nañ ci yaakaar bu baax. métti na méttiwaay bi nga xamante ne kenn xamul fu mu toll parce que ren benn cérémonie amul du màggal du jàng du laylatu xadru du dara moo tax ñun ñuy yar ginaar yi dañoo am difficulté pour jaay bi da ngay yar ginaar jaay ko nekk problème mujj da nga koy mujj rey di ko stocké ci congélateur yi pour xaar leneen. Covid 19 di bañ dajaloo ba loolu tax ñu dakkaloon événement religieux yi. gën ci suñu wér gi yaram waaye jur ak njombe ci jaaykatu ginaar yi ndax mënatuñoo duufal seeni gafa.